أعوذ بالله سميع العليم من شر إبليس وجنوده jaru ko bu ma waxee lu am solo rek ñu déglu ma أعوذ بالله من شر إبليس وجنوده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأرض وجعل الجبال أوتادا وخلق الإنسان وصوره في أحسن صورة ما شاء ركبه wa baasa sayidana muhammadan rasula wa anzala fi lqurani aayatan tadullu ala azamati sayidi lwujudi allahuma salli wa sallim wa barik alayhi muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dalika mathaluhum fi ltawra wa mathaluhum fi linjil ka zar'in axraja shat'ahu fa aazarahu فاستغلس فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما mbokk yi fi teew asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dama bëgg balaa noo tàmbali parce que tey dañu wax ne nañu waxtaan ci pas solution ñu waxtaan ci pas ma bëgg balaa noo commencé waxtaan pas solution ñu jàngal ko kenn ku nekk ci nun balaa noo jàng ñaan gi nag ku nekk ki nga dendal na nga fas lu wér ci sa xol ne dencaloo ki nga dendal lu toll ni zarra ci mbañeel ak coxor ak ki ñaan ñu jàng benn fatiha te sellal ko teg ci ñetti suuratul ixlaas def ko hëddiyaam moom bu noppee ñu waxtaan ci Par Solution kemtalaayal dix minutes ndax dañu wax ne dix heures et demi mu la ñu war a taxaw te dix heures jot na bu ñu jàngee ñaan gi day tombeek mu nekk dix heures vingt cinq ma waxtaan trois minutes joxe micro bi ngeen tëj ci deux minutes yu ñu ñibbi bal bal leen wàq bal leen wàq bal leen wàq te yàlla tax baal ma àq sëriñ baal leen ma àq ñu jàng ñaan gi ñu jàng ñaan gi benn fatiha ak ñetti suuratu ixlaas ak salaatul fatih ku ko jàngul woon nga jàng ko ndax Serigne Babacar Sy moom lañ ciy ñaanal xaaji seexu wolof nee na su tan goree su na su tan goree bu ñuy gubali mbaam moo cay ëpp say ndax mbaam bu duufee pour tan la nu wax ni dañu bëgg a waxtaan ci pas solution pas solution ah góor gu gore ñu jàpp boobu Cheikhu mooma wax ni nañu jàngale Serigne kër ndax nit ñi man ko roy góor gore dafa am way wu maam Mansour radiyallahu taala anhu way maam Seydi El Hadji Malick ma wi maam Mansour way maam Seydi El Hadji soo jëlee way wa dëpp ko solal mbub ma sëriñ Babacar si mu jot ko sëkk du buubu juudi wa taajul aarifiina wa man fawqa almuluuki wa in allaw lahu jaahu muaasiruuhu min al ashyaaqi qad ajazu an darkihi hal tara man kaana alaahu e eh, Maodo dafa mën jàng moo tax boo toggee ci keppaaram da ngay mën jàng Maam Mansour nee na xamaalu kallin xamaalu kallin ndax yaa ngi may dégg حمال كل لكل دون ما ملل والعرف يأمره والنكر ينهاه déggoo ma de jar na ma wax ko ci wolof fii xusni siiratihi fii xusni siiratihi afwun li zaalimihi waslun li qaatiihi ammat xataayaahu lam yaxkihi xaatimun lam yaxkihi xaatimun juudan wala hiramun ka annama albaxru bil amwaaji xaakaahu Euh, man sëriñ dama cee bëgg sëriñ bu man jàng sëriñ dama cee bëgg sëriñ bu man jàng mais sëriñ bu mënul jàng ay taalibeem du ñu man jàng te taalibe bu ñu mënul jàng du ñu joteeg seen borom parce que sunu borom subhaanahu wa taala kenn mënul yegg ci moom te amoo xam-xam imaam maa ngi lay nuyu dama bëggoon doyloo nuyoo yu jëkk yi ndax wolof nee na géttug janax bu ñu génnee benn ci am tur géttug janax su ñu génnee benn janax rekk ci am tur bu ca génnati dañ naan jënee na ngoog comme nuyu nañ leen ma bëggoon doyloo nuyoo ji waaye comme wolof dafa mën a firi mun na wax ni ñëw na ca tànt ba te nuyuwul imaam ñu yaakaar ni dama koo ëmbal te ëmbaluma ko lu dul yiw xutbul wujudi wa taajul aarifiina wa man xamuloo ni njaboot war na mel melokaan wu tax ñu mën a bëgg sa kilifa dégg nga njaboot war na man mel war na mel melokaan wu tax ci moom lañuy ñuy xool bëgg kilifa ah loolu moom du ko yàq ndeysaan sama góor gi dafa doon wax ni yàlla na mel ni néew ba ñu jëkk a suul ca Touba na ngeen ma jàppal fi ma yem de parce que man su may gis xaalis damay jànnaxe ka annama min alqulubi nuqratu bihi yasuulu man xawathu surratu wa in tafaanat aw tawaanat qudratu yaa habada nudaaruhu wa nadratu borom maqaamatul xariiri ko wax Seydina Abu Bakrin turandoo Serigne Babacar Sy keroog bi mu ganee jamono Seydil Hadji Malick dafa ni am Babacar a ngoog am Babacar a ngoog waaw Serigne dama téyal dama téyal damay bañ a jànnaxeet booy jëm mag da ngay ki mais bu mu tax ngeen kii na ngeen kii may kii am Babacar a ngoog xadijatin wa aliyin wa man bi daawatihi usmaana du salami

mooy wañ oh ayca ayca ayca aywa البيان فتزود النفسي بكل بديعة وبديت على الأزمان هذا رسول الله يوم نزوله متخلدا بالحق والبرهان وإلى المتقى محمد نادى نادى الله يوم نزوله هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكه بسطت اليك اكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى الذي ما بدا الجنس من قربان والحور من بين النواحذ بالخمار متفرجات فيك كالوداد وعليك برد قد كذاك محمد في الموقفين به وفي إعلان وبوجهك الصافي وفي وفي باهري نيتلك على أم الكتاب بقتال نوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي علمني نكم العتو أجفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي علمني مثلك الفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بني أوتاني ثم الصلاة على النبي وآله min rabbi fi rabbi lxanaani ciy borom kay ndejaay maa xaala ahmadul tijaay li musidalha fa ilayka ya mahamadi nada madul tijaay من نزله متخالدا بالحق والبرهان كيان محمد دفعني تمتم يموت حققه جوهر الإيمان ñi ma soppal maktum haza rasul haza rasul haza rasul lullahi yow madlihi mutaqayyidan bil haqq wal hal haza kaya والله محمد نادى هي تحقق جوهر أتدف لي لخي هذا رسول الله يوم نذور لخشك هذا رسول الله يوم تنت بدف لي لخي هذا رسول الله يوم كمن نزله متخلدا بالحق والبرهان ولا هذاك يا ñu ngi lay nuyu bu baax euh, wolof nee na fu ñuy feese kenn du fa jooy góom comme dama entamé di wax waxi Maodo ñu baal ma ma xaw a sori ci Maodo ñu doog a présenté monsieur le maire pince yi nga xam ne juróomi pince yi desoon jox ma ko ma jox ko monsieur le maire mu fay ko pince junni la benn mu fay ko tey wala bu subaa bu ñëwee fay ko joxal ma ko monsieur le maire ma continuer jàng bi mooy pince yi ñu yóbbu Tiwaawan waaw non moom euh, yàlla bu yaakaar tas joxal ma ko monsieur le maire mu fay ko tey wala mu fay ko après ñu joxal ma ko Moustapha Mbodj dénk naa la ko dégg sa jigéen bale amul pénis kon mu ngoog ah ku la koy fayal jeex na de ayca maam Seydil Hadji Malick ay ca ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem jàng yi dafa tas c'est que temps yi damay bëgg am fayda bu ñuy wax damay noppi Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu solution pas solution mooy pas solution de mhm. dégg naa sànq ko doon wax ne in jaakum mubqidun ah? Ah. soxla ci kanam